50 mAh ba ci 220 mAh batterie automobile 6a di batterie bu baax bi nima ko waxee si Cap ci auto gendarmerie bu fofu la nekk bu leen nexé fu ngeen nekk ci réew mi ci information wala bëgg def s'en ay commande da ngeen leen di wo ci 33 867 20 22 77 236 51 70 wala box 78 222 71 71 Ababakar Ndiaye fu tambalé classe gi euh xam nga par vendredi dañu baxo di andi ay confidence mhm. muy ay ndenkané yo xamantene ji nit day dund lu di ko ak ñun. Mhm. waye dañuy taxaw ci agression yi agression yi mhm. bi euh, waa ji dafay wax insécurité boo xamante ne ñu ngi koy dund ak conséquences yoo xamante ne ji mi ngi leen koy jural mu tax nag mu bëgg kilifa yi wutal leen ci ay solution aba déglul waa ñun de suñu problème moom moo nekkoon euh, insécurité bi nga xam ne moom moo am diggante euh, sotti péage Kër matar bi en allant vers la station Total si garage bi foofu noonu souvent day am ay cas d' agression amul éclairage public sécurité bu bu kii moo fa am pas plus tard que samedi suñ suñ benn xarit moom il il il a été euh, témoin d'une boo xam ne am na foofu noonu benn borom moto Jakarta la ñu la ñu dool foofu noonu birig mu daanu après malheureusement il est décédé même man après pour euh, pour a vérifier est-ce que si c'était vrai ou pas naa def ay recherche gis naa aussi ay ay page moto moto moto cycliste ñu ñu ma ma wàcci euh, après ba may traversé nag euh, si si kii après rond point bi euh, si si même zone bi la quoi si si ci ci ci forêt bi après ay ay ay trois jeunes yu nekkoon si nga xam ne si si ci benn charrette dama leen dépassé après yàggul ñoom ñu ñëw dawal seen charrette ba sama karam si si laa ne ñii xam naa am luñ bëgg quoi après ñu wàcc commencé daal dina ma waaw xam nga rek ab wax seen wax ma ma tegoon ne dañ ma jaawale quoi mais ba génnee seen pompe si laa xam ne ñii dañoo ñëwoon pour agresser ma ñu ñu pompe gisatu ma ma ne lii nii mën nañ yor jam mën nañ yor lu nekk mën nañ la fi jam fii aussi ay problème genre yooyu si laa ne euh, bu bu ma résister quoi jël saak bañ jëlee saak ba nga xam ne au moins retrouvé naa samay esprit si laa jël benn xeer daal leen koy sànni topp leen après nag ñu daw naan naan ñu euh, kii ñëwal boo ñu toppee heureusement devant amoon na ay voisins yu nekkoon foofu ñoom ñoo ñoom ñoom laa yuuxu ñoom ñoo ma dimbalee ba nga xam ne yàlla yàlla yàlla def na si xew la ma récupéré sama kii sama ordinateur mais après dañoo dañoo dañoo dañoo yóbbu samay samay pièces d'identité sama permis de conduire samay carte bancaire yëpp yëpp yëpp yëpp mu ngi si woon quoi sérieusement foofu moom sonn nañ bu ñu si mënee dimbalee la police la gendarmerie bu ñu mënee def foofu ay ronde surtout surtout Euh, ay ay vingt deux heures jëm vingt trois heures ñu ñu ñu ñu si aussi éclairage public bi si si ci ci kii voie boobu noonu ñu ñu jàppale ñu si daal parce que son nañu aussi maa ngi ñaax borom ñi nga xam ne souvent ñu ngi yor ay ay ay kii deux Euh, bu fekkee ne dafa guddi ñu ñu jël sorti neuf bi sédiment parce que moom moom moom moo gën a kii daal moom moo gën a wóor parce que aw foofu aussi ñu lay agressé di la rey di jël sa alal euh, dara jaru ko waaw dama waxoon ne naa ko jàllale fii puisque xalaas aussi c'est c'est am na am am na benn kii am na au moins ñu bëri ñu leen ñu suivre information bu jàllee nit ñi dinañ si moytu après autorités yi nga xam ne ñoom ñoo war a jël mesures yi dinañu si dimbale aussi jërëjëf. gis nga abaa kooku noonu mhm. moom day alerté mhm. mais dama lay indil beneen cas agression boo xamante ne ji lu doy waar la li ngay gis ci film yi mhm. euh, takk buum bàyyi ba borom moto ñëw nga yëkkati buum bi mu dal ci loolu am na ci réew mi laa ilaha illallah kii ngay waaj dégg da koo dund mi ngi ko dundee ci VDN 3 bi moom tànk bu dam mu la ci jële ki mu àndaloon ci moto bi moom it loru na ci mais nee na moom bu koy nettali comme film. mais Ndiaye VDN 3 bi kenn du ci jug kenn du ci wax. nee naa bu ñu moytuwul li ma leen wax fii keroog rek danañ dem ba nit ñi dootuñu fa jaarale. non dootul amati utilité réew mi mu nekk investissement à ah, perte nag. mais abaa kii bu lay nettali li mu dund ci VDN 3 bi ak agression beeg ni ñu ko ko defee. Hmm? sa yaram sa yaram dafay daw abaa déglu. waaw ah, man dafa am benn affaire bu ma dal si VDN 3 bi rek bëggoon tey nga wax suñu mbokku borom moto yi ñëpp mën see jot. ñuy bëri démb dama jógee dama benn xarit dama seesi woon ma góor muy jëm di ñibbi Malika Plage ma ñëw en face marque pardon fu flawo nekk jékki-jékki ma gis ay ay agression bu fa nekk war waar tey na waar quoi bëgg ku ñu si jàppale dimbal lañu si ndax sama moto laa du daw te sama bakkat mënoon na see des affaire bii nii ndax ñëw jékki-jékki naa gis gis gis genre buum pour traverser sama kalam parce que alxuraanu karim bi ma fa gis nii musuma foog ni man lii nii am na billaahi ndax dama jékki-jékki ñu gis buum bu traversé suñu kalam gars yi dañoo xewle bu ñëwee dañuy def genre benn voie benn genre buum bu ñu def si diggante bi kenn ki lay toog ci voie bi kenn ki nekk ci benn voie bi gis nga boo ñëwee dañuy jël buum bi toj moto yi mooy yi ñu doon def si film yi toj moto bi man instant dama jékki-jékki gis man sa faar euh, yi moo doon tàkk ma jékki-jékki rek gis mel dama gis benn affaire lu mel lu xaar traversé sama kalam la sama xel di ñëw wallahi nday rek quatre buum la gars yi jël benn buum bi ñu teg ko si kalam moto benn buum ñu lon ko sama baat bi fekk lu mënoon dafa bëri mais bon bon tarre bu man nu ma delluwaatee ma la man sur le coup man dama dal ba dama xam xaw ma hôpital man laa mujjee yeewoo dan dafa loo affaire dem naa polis wax naan wax leen ko sama tànk am si problème boo nee wax leen ko ñooñu ñoom yi fi nekk mu ñu wax nu mu toll mais ku si mën dimbali billaahi ñu jël beneen trois bi fi nekk métti na métti na man mi di wax la te sama buntu àdduna di liggéey jël tey tànk buy metti ñu ngi nii tey indil ma problème mu tànk sama tànk dafa damm toj si biir sama xarit bu ma àndaloon ba mu dafa xëm sur le coup bopp bi yépp lan ko ñaw ñu daal bëggoon nañ loolu kuñ dimbali si 23 ndax metti na. gis nga wax naa la nee naa la lii comme film. Mhm. lii comme film ah, mais film nag mi ngi soog a ñëw ci xalaas bi ci topp. comme temps bi fi la tollu moo tax damay enchaîner yëf kon lii mooy lancement film bi. jeex na le xëy mbette novelas kii benn benn benn benn benn xew-xewu jamono la bu xewee Kaolack. Mm-hmm. benn élève buy def CI. Mm-hmm. Euh, moom la ki koy jàngal. Mm-hmm. dóor ba yàq yaram bi. ki koy jàngal moo ko ñoom yëguñu ko woon sax mais daal bi xale bi demee ñu summi ko di ko sang mooy image yi nga xamante ne ji euh, passe partout yónnee na ma ko parce que moom waa ji passe partout la waxal. parce que yónnee ma image yi. mais abal yi da ngay naan ndax ndax ndax nit moo ko def affaire bu doy war te yéeme image laa lay a gis nga mu ngi nii bu fekkente ne sa yaram du ca daw nga xool ko en tout cas mooy xale bi li ngay gis nii voilà moom lañ dóor nii ba yaram bi yàqu. léegi nag boobu ba léegi jox nañu numéro bi biñ ne moom moo ko def ñi ngi koy woo mënuñu ko jot woo nañ ko ci whatsapp fu ne jaar nañ fa mënuñu fexe ba jot ak moom. Mm-hmm. yónnee Passepartout yónnee na ko éléments yi euh, mais ba léegi réagirul mais dañuy déglu waa ji mu nettali ñu nan la histoire bi demee. aja man euh, benn sama benn jarbaat la bu nekk à Kaolack école Sam. donc euh, nii la ko maître am def xale bu ndaw la nag sëy lay def mi ngi doog a dugg école ren donc dañ ma ko envoyé daal ma ne xaaral ma balancé la ko nga xool. s'il y a lieu quand de faire des dénonciations il faut le faire parce que tamit naruma koon def euh, mais bi ma biñ ma joxee numéro directrice parce que euh, le prof la euh, kii ko ko def numéro am jox nañ ma ko mais depuis ce matin mënu koo jot kenn mënu koo jot donc directrice am laa mujjee contacter donc waxtaan naa ak moom et na ni waa ji il est habitué des faits il est récidiviste nii lay def xale yu bëri da leen koy def foofu noonu à Kaolack donc ma ni woon nag là il faut quand même parce que bu nekkoon benn cas isolé la sax d'accord mais quand même japp doomu jàmbur aussi surtout ay xalé yi ndaw ay 5 ans 6 ans 7 ans di len def ni li c'est pas bien quand même c'est des choses à à à dénoncer et truc. personnellement nak xalé bi euh, xawma ma def d'ailleurs euh, il a fallu que ñukay sang sax ci lañ dogu remarquer affaire yi parce que bimu mu wàccee nangu wax dafa wàcc fekk dafa yàq sax tubay ji donc apparemment dóor dafa metti ba dafa yàq tubay ji donc euh, biñ bi mu don ñu ko doon xaw ko pourquoi ponkal mu tolni yo ngay def li affaire yi mu ne mom dafa dafa kii rek nangul wax ñu laaj laaj nangul wax biñ demee ba simi ko sang si leen constaté que yaram bi yëpp na après si la wax maître moo ko doon dóor te je pense pas xale bu ndaw bu dina mën a def lu ko jar te en plus bu nekkoon cas isolé mais comme comme koy xale yu bëri yaakaaruma ne xale yooyu yëpp muy jàpp di leen dóor bañ xamee ko noonu yaakaar yaakaaruma def nañ lu graaw wala loo xam ne lu defuwul ci xale bu ndaw à l'école peut-être habitué des faits ñoom nag waxuñ waxuñ waxuñ né def nañ ci ay mesures wala yoy. Bima ma ko dani ma ça tombe bien parce que moom actuellement mi ngi nek séminaire ak des inspecteurs et trucs donc euh, naa ko envoyé documents yi naa ko image en guise de preuve waaw moom loolu la wax nee na après moom dina xol lu ci def mu parce que d'ailleurs le gars il est tellement habitué des faits au point que moom il n'a elle n'a même pas parce que directrice jigéen la quoi elle n'a même pas accepté euh, au début en tout cas waa pour mu jangal sëy bon il paraît que waa mo fexé dal ba jangal sëy mais ñoom euh, il n'était même pas d'avis pour que mu université yi vu que dafa xaw a soxor te day def nii xale yi bon man nag bi ma waxee bon après man envoyé naa ko image yi wax ko ne ko nag parce que famille bi dama ne ko famille bi ñoom dañ ñëwoon dañuy ñëw école et truc ma ni leen bon man maa ne leen nañ toog rek comme waxtaan naa kilifa gi mais du comme nag récidiviste la te mi ngi koy def xale yi ah là aussi moom il faut comme ñu wax ñu def au moins une action wala des actions au moins pour mu bàyyi li muy def quoi pas pour mu créer ko effectivement des problèmes mais au moins pour que mu bàyyi li muy def parce que tamit ay xale yu ndaw di leen dóor nag euh, voilà dëkk ci ba ñëpp xamee loo ko loolu c'est pas bien waaw ya ko deg de. waaw gis nga ko de. mais Ndiaye ñi seen waa kër duñ jug dem porter plainte wala ñu juut neen nu def. déggoo nee na nee na ñoom déggoo ci biir waxam mi ngi naan euh, directrice bi ki jiite école bi nee ko kii yàgg nañ ko fa plaindre bëgguñu woon sax mu yore classe yi ndax dafa soxar ci xale yi. également euh, dinañ ci def li war moom famille bi dinañ daje dem porter ji plainte parce que lii dafa dafa jéggi dayoo. seeni problème pop la ñuy jël di ko sippi yi. <laughs> kenn gis lu gis nga Aba booy nekk ci ay xale wala nga yëngu ci santé. yërmande da ngaa war a da ngaa war a laabiir bi stop mooy ñi koy def dañ dañ leen war a xool ba xam ndax ñi xajoo nañu ay xale ndax amuñu ay problème sax problème personnel problème ah. bi ci topp léeg-léeg nga gi dem ci yenn endroit yi di fa lijjanti papier ñu ñàkk la kersa nit ki la mu la mu la mu fanaanoo moom lay indi ci barabu liggéeyukaay bi bu fekkente ne yow li nga fanaanoo neexul ngeen daje moy indi histoire yi ngay dégg rek. Eh, Ndiaye boo fatale numéro bi mën naa waat ni ci week-end bi dinañ la envoyer xalaas yu mel ni yu bëree bëree bëri. numéro bi 77 la 157 17 wala 76 177 17. mais mais mais kontaan naa ci yow. ajuma bii di ñëw moom xam naa rek ma koy baal moom. déedéet abaa faaw faaw nga ñëw ajuma yi dafa diis. Ndiaye man suñu jumaa koñ man la xaar. waaw mais julli jotagul. maa yor caabi yu ji nga ma ne julli jotagul. jërëjëf abaa. <laughs> Optique Vision Plus Sénégal établissement waa Serigne Touba Fallé frère savon créole batterie automobile 600 Real Mix Premium Energy Drink Africa Fly Tour gamme capillaire Canvas Plus Access CPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal ñoo Don et may Halas. émission Merci beaucoup à l'équipe de Khalas, merci à Maïs à la technique. Mesdames, Messieurs, bonjour. 10h, le flash d'information au micro Barthélémy Gomme.